Thank you. Bébé Jackson oh xoolal xale bi waaw li muy def ki ko entraîné nag muy Ibou Sène le grand boxeur Ibou moo yor xale yi di leen jàngal xeex parce que li dafa am solo ci mbër di entraîné di entraîné ay reflex di entraîné boxu lii dafa bokk ci mbër parce que dem ba aaren sa di xeex ak yow waaw waaw xoolal Bébé Jackson xale bi boo ko gisee. day dem ci Balla Gaye 2 xale bi boo ko gisee sa xel day dem ci la de guerre mu waalo xale bi boo gisee boo ñaar rek la may nuru xale bi boo ko gisee sam xel dem ci kees ba tey oh waaw waaw oh ndeysaan Bébé Jackson waaw waaw ndeysaan Bébé Jackson nee naa ko su gëmee boppam rek entraîné récupéré lu doy di contact mu saf léegi ci kanam Kër Mbay Fall am champion bu kenn mu sa gis waaw ndeysaan xam nga cosaan dafa bokk ci suñu culture ah, aada cosaan a ngi nii ndeysaan lii dafa bokk ci réew mi ñu ngi ñaan rek Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw waaw ñu ciy aw oh. xoola Bébé Jackson xamal xale bi soo ko xoolee rek xam ni actuellement ni pare na bis bu rafet rek la ñuy xaar moom lay xaar de waaye ndey Bébé Jackson sa quatrième sortie est-ce que dina nuru première ba est-ce que dina nuru deuxième ba est-ce que dina nga xamante ne ci nga daj ak Superman gàcce oh, oh, xale yor na état mi ngi ak mi ngi doole. waaw waaw san xolu cosaan laa ilaaha illallah waaw waaw laa ilaaha cosaan nee naa ko aada cosaan a ngi nii ndeysaan xel yi dem nañ ci otoraay bu kees xel ya dem nañ ci mbaaxaan bu kees waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ànd am di jàmm ni yéen ñu ñuy seetaan tey ñu ngi fii ci kër Mbaye Fall benn quartier bi naan tool Dias benn xale bu am talent mooy def tey ah open press ñu ñëw fi tey ngir seet si ko waaye xale bi tey ay am di jàmmam ay nijaayam ak ay mbokkam ak ni nekk ci koñ bi ñëpp dañoo ñëw ngir seet si xale bi kon mbokk ñi jàll ñu seet si xale bi incha allah salaamaaleykum papa ñi ngi lay nuyu baax ngi leen sant bu a open press Bébé Jackson tey loo tey loo gisee Jackson tey bëgg làmb moo Jackson di ko ñaanal saa su ne nag yéen ñi nga xam yéen a ànd ak moom Jackson sur plan national jërë ngeen jëf aja jaajëf bu baax a di ko jaajëfal bu baax di papa papa ñu ngi lay nuyu baax fay a production tey doonoo ñëw euh, euh, open press Bébé Jackson tey doonoo gis tey ñëw nga Euh, sama yaram dafa daw fi mu ne nii xam naa ne la mu naa li ma gis ci taxawaay bu mu taxaw nii yaakaar naa ne am na forme boo xamante ne mën na koo yóbbu làmb ja te ñaan si yàlla forme bu mu yóbbu yàlla mu ñëwoon yàlla nak ci yàlla may lu kaw suñu jort yàlla ci yàlla may ndam incha allah amiin yaa loolu ngeen dégg am na solo kon yàlla ko yàlla may ndam papa ñu ngi lay nuyu baax a baax. ñu ngi lay ziar di leen fay tey waaw xanaa kontante parce que su ma ñëwee fii euh, ci Kër Mbaye Fall ci open press bu Bébé Jackson gis mbooloo mi ni mu toll gis aussi moom ni mu ànd ak cawarte ak Pastef xam naa ne waajal na bés bi bu baax ndax ku mën bés la te ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ci jàmm defal ñu ci sutura ñu dem ceeg jàmm am ci ndam ñibbi seeg jàmm. ndeysaan amin yaa rabbal aalamiin kon ñu jàllaat ci kenn rek papa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay. tey doonoo gis yaa ngi fii ci open press Bébé Jackson bi waaw dañ ñëw ci waaw dañ ñëw ci open press Bébé Jackson bi bon ak contentement bu rëy rëy bon ànd ak sunu leader eh, Aline Badara Lo muy leaderu convergence des forces locales de Mbao bon ñu invité ñu ñëw ci eh, open press bi bon di ko souhaité bonne chance rek ci combat bi mu jëm quoi waaw loolu la ñu am ñu wax quoi pour l'instant acca kon waaw loolu ngeen dégg loolu am na solo kon xam naa sama caméraman bàcc da nga may topp rek ma jël sama nijaay ji waa nijaay ñi ngi lay nuyu bu waaw ñu ngi lay fay bu baax a waaw xanaa di ànd ak kontaante rek ak mbégte di waajal bis bi rek xam ne bis bi daal ala daw me na ba pare. yow yaay chef de quartier bi ah. ah. mais chef de quartier neex na de. waaw neex na kay. <laughs> mais mais danoo gis yaa ngi fii ñëw nga ci open press mbër bi tey tey yow yaa jiite quartier bi tey loo ñuy wax ci mbër ak ban yëg-yëg nga ci am ci mbër ak yooyu daal. waaw avant wàllu quartier sax maanaam mbër dafa nekk sama mbër écurie bi nekk sama écurie. man maay le secrétaire général de l' écurie bi man maa ko sos si dafa coor nekk président bi man ma nekk secrétaire général bi wàllu këyit yëpp man maa ko yore booy yi nag nekk samay booy nekk samay kii déggal ma lépp lu ñu dugg rek ñu daal di ma ko kii kon man lii bu amee rek man sama kontaan la sama mbégte la ndaxte lu ma doon rêvé la daal tey am naa kontaan am na di leen sant yéen di leen gërëm gis ne ku xool mbooloo mi rek xam ne xel dal na yaakaar am na daal ci bébé son kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm te di ko ñaanal yàlla may ko ndam bu bis ba allah. Jackson la la bëgg jël ah Ndeye bi Jackson ñu ngi lay nuyu baaxa baax wa ma lay maa ngi fay yéen ñëpp. wa xana contane rek di ñaan yalla yalla may ñu ndam li sedd guuy ñu ngi sant ñëpp na di gërëm ñëpp di ñaan non violence di ñaan yalla may yalla may ñu ndam li sedd guuy soobay yalla mais nday gis nga ne dal sa xel dal la ci mbeut tey. xana xel dal na bu baaxa baax sama mbër dafa liggéey dafa liggéey motax motax sama xel dal. acca kon xam naa feneen rek ñu jàllaat feneen day ba Jackson nee na xelam dal na waaw xaaru ñu jël Fatou rek laaj ko Fatou tey noo gisee mbër tey xanaa kontaan nag di commencé si bismillahi rahmaani rahim eggale si alhamdulilahi rabbil alamin waaw di ñaanal rek Bébé Jackson nag yàlla may ko ndam lu sedd guy nag lu mel na galaas du muy lu doon lu gën nag si moom waaw loolu rek amoon lu ma si sànni waaw yaakaar naa tey ngi ñëw fii Kër mbay Fall ah, ci benn quartier bi nan tool Dias ñëw ci Bébé Jackson taxaw moom waa Bébé Jackson di la wax ne noo waajale tey bis ni ki tey waaw di sant yàlla rek di jël suñu rand bi di sant suñu ñaari waajur di sant waa Kër Mbaye Fall bu wér wér war ñu wuy si dafa neex nga woote doon tàng li yëpp ñëw maanaam dafa neex loo xamante ni mën naa ne musu fee am nga woote ñu wisal dafa neex kon maa ngi sant waa Kër Mbaye Fall bu wér a wér di santaat waa Kër di sant sama tarkindaa si ginnaaw maa ngi leen di bégg bu wér di sant waa Kër Mbaye Fall di leen béggawaat nag ku luum waa Kër Mbaye Fall. mais gis nañ ne gis nañ la say entraînement gis nañ say mouvement yoo xam ne def nga ko tey looy wax ki ngay dajal tey loo koy wax. waaw kooku dama ne ko instant ma naan ko dañ maa yónni yaa xam tin ma ndax instant lii boo gisee xam ne dañ maa yeb na xaar ni instant dafay daj dëgg te du yomb billaahi du yomb instant ndam baa dee ñaar yooyu kese mais fii du ma fi du ma fi ñibbiseeg naxar xalaatuma loolu ndax li topp sama ginnaaw dafa dafa bari mais mbër loolu nga wax garaaw na de ndam baa dee ah. loolu laa gëm te loolu laa yëg. te loolu moo ndeysaan loolu nga gëm te loolu nga yëg mais tey mbër gis nañ ne tey gis nañ fi xale ndaw yi gis fi paa yi gis fi maire yi ah tey mbër lool loolu ci noo ko yëgee tey noo ko dundee maanaam. waaw li ma leen wax sama émission émission rek. jaamu neex quoi nga dëgg si koñ am jaamu dafa neex waaw nga dëgg si koñ am jaamu dafa neex moro boo wootee ñëpp wuyu si la bu noonu damaa mel neneen du demee nii mais xëy na dafa am taali bi moo wane fii moo tax mu mel nii mais combat bi gis nañ ne ñaata séquence nga waaje combat bi noo ko waaje la parce que bi nga xëyee ñaata entraînement ngay entraîné boo xëyee waaw nekk sama kuso ak sama gars yi ñu waa écrit ay ñoom Lamine Top ay ñoom Mayek ay ñoom Assane mais dégg naa na lu métti ah waaw lu tar na fii boo bëggee dara da nga ñëme lu xooteeku métti na trop nag mais dama neex moo tax daj loolu noonu maa ngi gërëm sama kusu Ibi maa ngi koy gërëm bu wér a wér gis naa li muy bàyyi temps bi bàyyi ci man xam ko ñaar dërëm te day bàyyi temps bépp di sonn ci man di ma teg lu métti ma koy dégg xam ne kii nii lu mu bàyyi am lu ma bëggal maa ngi koy bëgg bu baax di bëgg waat waa Kër Mbaye Fall di sant Badara Lo mi fi jógee tamit moo tax ma defal lu rëy jënd ma tiset yu bëri cent tiset la ma jëndal la ma defaral barki alxuraan may ma ko. mais looy wax supporters yi looy wax looy wax instant bi yi xam naa ne kàddu gu mujj fi loo leen di wax. waa ñoom am na lu ñu ma xamee lu ma xamee moo ne ci man. essence nii koo ci làmul sa fit du tiit amul buy booy làmb fi dem mu fi dem di rëf rëfi na ni dina bëgg ba boo sumee mu tiit mais xam na li ci man moo du ñu musa a tiit amul lu ñuy ragal ci man man ca biir géew ba rek non dawul yoole sax billaa wallaay mm. mais kon loolu leen dénk kon waaw ñu dal ñu rek def nañ daan def non violence bi duñ dem si jaamu ñëw si jaamu man chaque jour sama supporter loolaa la ñaan ñu dem si jaamu ñëw si jaamu waaw waaw ndeysaan yéen waaw yéen ko déggandoo kon waaw dal jàmm rek a ah. waaw yëg-yëg nga ci am kii moom ñoo bokk bis bi day sama doomu ndey ñu yàgg maak moom xam nga may am du lamb quoi du lamb loo xamante ni may wax du làmb dañuy déggante téléphone chaque jour su ma juum déem rek si mujj ñi ngi mel ni ku préparé combat ni ñu mel lañu meloon di saaga di def def lépp xam nga ku ni ku préparé combat ku ne yéen sa morom jaam ma ko yéen lu rey barki arxuraan bu dee dama ko yéene lu ñaaw barki arxuraan yàlla na dal ci man dama ko yéene jàmm barki Seydina Mouhamed billaa walaay te xam naa noonu lay demee waaw mais waaw kon xam naa di ko jaajëfal bu baax a baax di kontaan moom waaw maa ngi sant sama gaay wér di sant sama booy xam nga di sant waa marché di sant sama ñoom Habib ñoom Guèye si yaa dégg ñoom Papa Ndiaye ñoom Galas maa ngi bëgg sama booy ay ñoom Ibule ay Kéré ay Cheikh yaa ngi dégg di bëgg Badara Lo bu ay Idi Makalo ay Pa Dugure xam ay moloo Diop maa leen di bëgg wér di bëgg suñu waa Ekide xam nga di bëgg bàcc di bëgg sama gaay di bëgg waa Waalo di leen woo ne la ñoo jàpp si combat bi instant lam fi mu nii ndam rek moo jor ndam rek si des amul leen lu si des lu ndam kon instant la ma ñaan képp koo xam ne mi ngi bëgg Bébé Jackson nga jàpp ci teg ci loxo xam ne instant Bébé Jackson ndam la solo instant lii ma def ni du làmb trois combats trois victoire non gëwma loolu xam la laa gëm yegg fi gars yi yegg man loolu laa gëm mais di bëri daan gëwma loolu man maa gëm yegg fi gars yi yegg te li koy def ak li koy maye incha allah rabi ñu ngi si tànk yooyu maa ngi leen bëggee ñëpp nag waaw mooy loolu loolu <laughs> acca ji ko jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci moom ah mbër li mu wax ni am na solo wax na dëgg loolu la gëm te loolu loolu la xam te loolu lay dund tamit encore di ko ñaanal rek yal na ko suñu borom may ndam lu sedd guy ah di wax ne tey gis nañ fi ay taxawaayam supporter mi xoola xale yi ndaw ndawaan yi xoolal paa yi xoolal maire yi ah ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen di wax na feneen ci beneen beneen mbër encore boo sala set danoo wax lu garaaw muy lan ndax macca ndax Jackson suñu rakk la ñu bokk nekk waalo bokku daret di dundu aar barki Seydina Mohamed fu mu dem ñu ngi fa fu mu pigiroo ñun naan fa gaa yi ci la set ko réewul danga jaar ku ko siiñul danga fa ku ko réewul danga jaar ku ko siiñul danga fa muy sama kii du ma ko wayal wayu jàppal le set ki ci bëri nga naan le set dañuy sangu ba set soo suñuy di set gàddu suñu fur set ak suñu biir ak suñu boro set dem stade daa daan ñibbi